heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine amis internautes d'Equivox TV daleen jàmm ci seen euh, euh, matinal bis ni ki comme ni ñu tàmmoo di ko defee rek xam ngeen ni rek nag ñu ngi ci fin de semaine bi euh, gars yi xam naa ne xaw nañu am un peu la pêche tey puisque demain week la comme ni ñu tàmmoo di ko defee tous les jours ah dañuy rek daal di doole ak li nga xamante ne moom mooy revue des titres maa ngi ànd ak plateau bi nag ak ki nga xamante ne moom mooy Souka Seck waaye DJ Mo yéen a ko doon xaar fan yëpp gisoo leen ko tey ne mu ngi waat ak ñun ci biir plateau ñu ne la waxtaanee lu am solo bàyyi rek euh, ma dalal leen Souka Seck maa ngi lay nuyu. fay naa la Mia maa ngi lay nuyu dina wax jumaa bu baax ak. macha allah bu baax <laughs> gis naa la di nuyu suñu frère euh, Momo borom noir blanc bi. ah ji euh, càmmiñu xale yi <laughs> donc di ziar les internautes di ziar l'équipe technique aussi yëpp voilà ayca mbégte lay nekk saa su ne rek muy ànd ak ñun ci biir plateau bi kooku di Souka Seck waaye DJ Mo maa ngi lay nuyu DJ Mo. maa ngi lay fay Mariama. jumaa mubarak. ah gis nga noonu laa def te génn noir et ah. Ah, xam nga blanc leer la. Mm. noir tamit di firi leer. donc euh, namoon naa plateau bi mais namoon naa internet yi. mburu dafa grève woon ma grève noonu rek la demee damaa bëgg mburu bu raaree ma raar. <laughs> bu leen ko ko jàppee da ngeen koy comprendre rek. Aïcha mu nekk lu am solo lool euh, mais laata rek xam nga ni ci deuxième partie bi ki nga xamante ne mooy Ramatoulaye aussi mi ngi fi def ñu rek euh, rejoindre ci plateau bi mais laata loolu dañuy doolee rek ak li nga xamante ni moom mooy euh, revue des titres yi tey nag xam naa da nga ànd ak man nag ñu def benn débrief bu ndaw tijjee ko ak li nga xamante ni moom mooy laas laas na xëyee ñu ak drame familial à répétition la ñu wax nee nañ laa recette de la 16 Awa Cheikh Mbengue maanaam daal famille ñu ngi souffrir jamono ji waaw jamono jii fi ñu toll moom bés bu neeree nga dégg lu la yéem voilà nit ñaa ngi souffrir wante la société aussi mhm. mu ngi ne am choc aussi parce que lii choc émotionnel la mhm. donc euh, nag war na tax nag ñu xoolaat euh, li waral li yëpp voilà am na solo loolu ñu jàll très rapidement ci la soleil le soleil nag tijjee nañu ak ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall nee nañ le Macky au forum de Paris sur la paix le monde a intérêt à voir l'Afrique se développer mu mel ni jiitu réew mi mu ngi bëgg jiital li nga xamante ne moom mooy intérêt africain yi. mais Mia loolu dafa jot parce que africain yi toll nañu ci deux mille vingt vingt deux presque deux mille vingt et jeex na. Mhm. africain yi toll nañu ñu dépasser li nga xamante ni moo doon la réalité coloniale. donc jot na suñu chef d'état yi ñoom tam ñu xalaat seen population yi. Mhm. te ñu xalaat aussi l'intérêt suprême euh, de la population africaine donc bu fekkee lii nii Macky sàll def ci jëm pour euh, intérêt euh, de l'Afrique son développement dañ koy saluer. am na solo lool waaye ba tey xam ngeen ni la tribune ñoom moom dañu xëyee ci li nga xamante ni gis nañ ko li le magistrats répare li nga xamante ni moom mooy le l'injustice la ñu wax annulation des rejets. waaw magistrats yi fii nii dañu ànd ak seen conscience professionnelle. donc euh, benn injustice je pense que il sont là pour rétablir la justice mm-hmm. donc normal normalement aussi ñu rétablir euh, injustice boo xamante ne am na donc kooku aussi loolu lu ñuy lu ñuy applaudir la aussi di leen gën a woowaat rek ci li nga xamante ne moom la la population di xaar nga xam pour ñu am une justice indépendante libre et transparente aussi am na solo loolu ba tey rek ci même concept bi la ñuy des ak alerte quotidien ñoom nag dañu xëyee ci maitre Malick Sall conseil à Barth de déférer à sa convocation du 1er décembre. Euh, euh, c'est normal que le ministre Malick Sall mu conseiller Barthélémy Diaz mu déférer à sa convocation parce que euh, si jamais il ne le ferait pas peut-être mun na am ay sanctions yoo xam dina daanu ci ndoddam. Mhm. donc justice bu la woowee daal. defe naa la position ou bien euh, le comportement bi nga xam moom la ñëpp di xaar mooy nga dem wuyu ji. Mhm. ànd si nag nag ak patri patriotisme. si tu n'as rien à te reprocher pourquoi pas ne pas aller répondre à la convocation. en tout cas c'est la justice yaakaar naa ne war na rek euh, mën a dem wuyu ji fële na la mooy fi ñu ko woo waaye ba tey rek laataa ñu jeexal ak ki nga xamante ni moom mooy Sud Quotidien. Euh, ñu andi ñu réhabilitation des listes euh, de Yewwi de Matam de Yewwi à Matam Saint-Louis Mbour et Pikine daab justice désavoue les préfets mu ne diggante ki nga xamante mooy préfet yi ak magistrat yi daal jamono ji demeewul noonu. waaw parce que bi bi coalition yi amee ay rejet ci seeni dépôt ñoom ñëpp presque dañu def ay recours. Mhm. donc euh, lii dañuy wax ni am nañ gain de cause ci seeni recours yi ñu def. Mhm. aussi préfet yi aussi nañu xoolaat ñoom tamit bien vrai pour l'administration territoriale. Mhm. mais y a des manquements yoo xamante ni defe naa war nañ ko mën a euh, statuer autrement que di mm. parce que rejet dafa xaw a doy waar daal parce que ils seront obligés de faire des recours et tout finalement vous avez vu que la dame justice désavoué na leen te lii mënoon nañ fa bañ a àgg nag. ay ci am na solo loolu ñoo ko déggandoo ñu tëjee ak li nga xamante ne rek moom mooy sport ak ki nga xamante ni moom mooy euh, stade le quotidien du sport. ñoom nag dañu delluwaat rek ci li nga xamante ne moom mooy match bi doxoon diggante Sénégal ak Togo démb finalement ñu mujjee ci nul 1-1. nee nañu les Lions ont l'ont échappé belle maanaam daal gàcce gu mooy la. bien sûr parce que presque à la fin de la match lañ dugale seen euh, bi boobu noonu. <laughs> dafa mel ni dañoo xawoon dem bay. Mhm. benn miracle daal di ñëw daal moom moo chance boobu noonu. ay ca ñu échappé ko échappé bu rafet yi tamit. Mm, en tout cas titre na sénégalais et ça a surtout suscité mm. de débats Momo looy commentaire ci kii bi. Ah. <laughs> Eh, wax ñu bëgg dem moom dégg naa dañaa gee de match gars yi sunu gars yi ay jàmbaar lañ ay jàm waaye nag ay jàmbaar yu neexut faral lañ mm. <laughs> ah li tax neexu ñoo faral mooy équipe boo xam ne moom li mu lay promettre mooy dinañ dem demi finale dinañ dem quart de finale mm-hmm. maanaam doo dégg mukk ñu ne coupe bi dinañ ko indi dañoo neexut a supporter tamit ay jàmbaar lañ nag fu ñuy nem mm-hmm. seeni <laughs> seeni club waaye daal ñun daal ah, yaakaar naa bi ma nekkee xale ba léegi ñun daal Sénégal daal nañ ñu may coupe yàlla ñu bala ñoo màgget <laughs> en tout yaakaar am na te yàlla bu yaakaar tas euh, mu nekkoon loo xamante ne nag moom lañ leen andiloon ci revue des comme ni ñu tàmmoo di ko defee ak yéen tous les matins dañuy jaare rek ci deuxième partie émission bi ak seen cas cas yi nag tey ñaar la mais nag tey dañuy bàyyi lépp loo xamante ne nii rek réseaux sociaux la jëm ak yéen ci wër bu yaram maanaam santé xam ngeen lu am solo la nit moom loo am lu ne te amoo wër bu yaram nag euh, daanaka amoo dara ñi euh, jël nag ñaar yoo xamante ne nii vraiment Primo Diatta actuellement ça refait surface ci li nga xamante ne moom mooy sénégalais comme ni nga ko feebar boobu noonu di VIH sida bi ak euh, cancer bi fàtte yàggul dara ñu ngi génn ci octobre rose te ku wax octobre wax euh, li nga xamante ne nii comme genre liska yi nga xam ne dañuy waxtaanee lépp luy feebar ak euh, les femmes atteintes du cancer que ce soit cancer du sein que ce soit cancer du col de l'utérus ñoo rek jàppale jigéen ñi tey nag loolu la ñu fas yéene waxtaanee ci li nga xamante ne moom mooy deuxième partie émission bi waaye bu leen fàtte comme ni ma leen ko waxee rek dañuy dooree ak sida bi sida bi dellu si war na ci réew mi yëngalaat na réew mi tiital na doomu aadama yi di jëmoo. Euh, sida mosu fee jóg c'est que kay day toll ay jamono yoo xam ne. Mm. Euh, day naan tekk njëkk say jóg. te li gën a garaaw jamono ji ci sida mooy ci ndaw ñi sida bi bëri na ci ndaw ñi euh, bëriwaay boo xam ne pour nga mucc du yomb. d'abord euh, rikkuwaay nañ ñu dimbale képp koo xam ne mhm. yaa ngi koy yëg wala boog tey am nga doomu jàngoro bi mhm. rikkuwaay na nga ci musal ñi ko amul ndax kaawu sida bi jamono ji mooy tukkal Sénégal mhm. parce que boo jëlee ci fukki ndaw yoo gis mun naa ne bu ko juróom-ñaar amul juróom-benn yi am ko donc c'est grave et que sida nga dund ak moom ba faatu te doo wàll nit ci boo fagaroo mhm. fagaru bi mooy nga dem ci kër docteur donc liñ ci war a yaatal mooy naka la wàllante sida bi gaawe mhm. ak naka la ndaw ñi def ba day sida bi ñu jël ko ne ko ciix def ko seen yëfu bopp mhm. donc daal tey loolu la ñu war a yaatal léegi-léegi ci seen cas mu nekk lu am solo lool nga xamante ne nii bëggoon na waroon nañ ci nag ànd ak spécialiste boo xamante ne ci wàllum wërgu yaram lay yëngu waaye xam naa dinañ ko am prochainement ci suñu yeneen euh, émission parce que au dernier moment rek dafa am li nga xamante ne moom mooy te comme on dit am leen loo xamante ne moom mooy priorité bu bu bu priorité taxawee ñun dañuy mën nañ ko accepter rek xaaree ko ko ta suka suka sekk euh, ñu gis ni sidaa bi dafa touché en majorité li nga xamante ne moom mooy les jeunes waaw euh, sida bi bu ñuy xool les mhm. couches les plus vulnérables foofu la élevé mooy les jeunes mais aussi jeunes yi aussi Mia dafa am euh, benn famille boo xamante ni ñoom si ñoom lañ koy jëlee gisee en général. muy mhm. borom ñaari tur je pense que Sida bi yéeg na statistiques yi yéeg na. Mhm. mais nañu xool euh, exactement ci yan euh, façon nit la sidda feebar bi gën a bëree. mais on a vu que borom ñaari tur yi pratiquement. Mhm. statistiques yi gën a yéeg ci ñoom la yéegee. Euh, euh, bu ñu xoolee jigéen ñi nga xamante ne dañu am seen i carte mhm. di jaay seen bopp bu nga que les ñu baal ma ci terme bi mhm. mais c'est une réalité aussi mhm. ñoom sax au moins ñoom ëpp ëpp nañu chance boo xam ñaari tur yi ndax ñoom defe naa ñu ngi dem di faju ci mais aussi jeunes yi sida dafa am ñoo xamante ni dañuy nekk ci yenn activité yoo xamante ni dañ koy def clandestinement mm. de ce fait du coup buñ ko amee dañuy wàllaat yeneen seen yeneen i moroomu jën te loolu moo ci gën a grave en parce que seetlu nañ sax mm, étude bi mu ngi woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo liggéey ci wàllu sexe boobu noonu nga xam ne mm-hmm. euh, ils sont reconnus comme de professionnels tey jii ñoom ñoo ñoom ñoo gën a épargné que ñi nga xamante ne tey jii ñu ngi ci société bi ah comme des des personnes yoo xamante ne ni euh, doxuñu ci benn yoon ci yoon boobu noonu mm-hmm. ils sont les plus exposés et les plus touchés li waral lool noonu. waaw moi je je comprends pourquoi ñoom ils sont plus protégés ou bien elles. parce que ñoom peut-être am nañ benn suivi médical boo xamante ni duñ ko kafe parce que xam nañ ni euh, dañ leen exiger ñu am seeni carte de santé. Mhm. de ce fait dañ leen di suivre xool say saytu seen wér-gi-yaram. mais aussi li may wax ñi nga xam dañu nekk ci li nga xamante ne jaaduwul. Mhm. dañ koy nëbbu di ko def ci biir kër yi. wala ñu koy def ci yenn euh, espace nga xam loisir moo fa nekk di mhm. nëbbatu mhm. foofu noonu foofu la gën a bëree parce que ñooñu li ñuy def dañ ko nëbbat mhm. luñ ko ba nga xamante ni ñoom mun nañ leen a aar aar ñi nga xamante ñoom ñooy seen i proche ba feebar boobu bu leen dalee du leen wàllu donc loolu aussi day tax aussi que les techniciens de la santé aussi qu'on qu'on lance un appel que ñoom aussi nañuy def ay visites de terrain ñu wàcc si di yenn couche ak yenn endroit yi conscientiser Euh, ces acteurs là yi nga xam ñoo nekk ci milieu boobu noonu. Mhm. de ce fait ñu fexe ba daal di leen recaser di suivre seen traitement. Mhm. pour pour statistique bi muy nu mu yéegee buñ ko mën mënul arrêter. Mhm. ñu mun ko freiner. mu nekk lu am solo ñoo ko déggandoo ak ki nga xamante ni moom mooy Souka Seck di jëmoo ba tey rek ñu des ci phénomène boobu nga xamante ni instant bi seetlu nañ ko lu bëri bëri muy atteindre li nga xamante ni moom mooy jeunesse bi mais li ci gën a doy waa lenn la. tey surtout les personnes yoo xamante ne ils sont dans un couple ils sont mariés que ce soit muy ku góor ki muy ku jigéen ki dañ ci gis ni ñoom tamit am nañ ci seen wàll tey jii da ngay nekk en couple balaa ngeen di marié ngeen def seen ay test ku nekk gis ni sa morom amul beneen benn jàngoro léegi nag da ngeen dem ba ci biir jàngoro boobu feeñ fan la jóge ak lan moo doon na waar daal en tout cas. Euh, euh, euh, bëri na. Mhm. mun naa nekk ci kenn di ci tromper moromam que bañ na mun na mun na bañ a nekk ci loolu. Mhm. parce que dinaa la wax lenn Sénégal. Mhm. Euh, am na pratique bi ñuy def euh, pédicure manicure clandestin yi ñuy def c'est hyper méga dangereux ndax da ngay gis euh, koo xam ne tey mu ngi yor ay laamam di wër ci mbedd mi tey bu ñëwee daggal ma samay wee mun naa nàcc sama prêter attention mais day jël eau de javel rek laal ci wala des fois sax duñ ko def dem daggal keneen mun na jël doomu jàngoro bi yóbbu ko feneen mais aussi leneen su wax na ko mhm. muy ci wàllu borom ñaari tur yi gis nga ñooñu amul man man <laughs> billaahi ba nii may waxee yow mënu ma imaginer ne loolu mën na ne góor ak góor mën nañuy seq fii may waxee yow mënuma ko imaginer que mënu ko nangu te très sincèrement dëkk bi ñu ne Sénégal mhm. mérité ñuy wax dara di leen ci boole ko mhm. parce que très sincèrement mérité wuñ ko au Sénégal en plus leneen ci ndaw ñi mhm. kenn mënu leen tere jamono ji ndaw ñi parce que bu ñu demee ba ndaw ñi di def ay lomotif di ko envoyé def ko bad buzz ah jamono ji ndaw ñi kenn mënu leen a wax moytu leen jigéen mais rek waaye bu ñu demee ba mënatuñoo moytu. Mhm. nañuy fagaru. foofu laa bëggoon loolu moo fi sës lu am solo la mënatoo fi wax benn mhm. ndaw bàyyil jigéen wala benn jigéen nga ne ko bàyyil góor. parce que ñi dem ba nga xam ne bu ñuy seq entre ñoom dañuy lomotif di ko envoyante pour am bat buzz donc ñooñu da nga naan leen ñu fagaru. ci fagar boobu noonu xam naa day laajte sensibilisation bu mag parce que ndaw yu bari umpale wuñ ko. non xam nga loolu te fagaru bi daanaka mën naa ni c'est pas interdit pratiquement sénégalais bu nekk am nga ci accès tey ji lan moo tax négligence boobu noonu. waaw parce que gis nga d'abord fi muy njëkkee mooy ci kër yi tey boo amee sa doom euh, waxtaane si la vie sexuelle bu mu nekk un sujet tabou ci xale boo xam ne boo ko xamalee dina xami. Mhm. boo ko xamalul dina xami. Mhm. da nga koy teel xamal. parce que xamal xale dina tax mu mun a moytu danger yi mm-hmm. na jur yi di waxtaan ak seeni doom yu góor wala doom yu jigéen sur la vie sexuelle mm-hmm. xamal leen lii mooy lii lii mooy lii lii boo ko defee lii la la mën a jural bu ko defee dafa am ay mots yoo xam ne tey boo ko waxee ci olof day diis ci doomu aadama mm-hmm. mais boo ko waxee ci tubaab dañ naan moo baax tey ngeen baal ma tey boo nee préservatif mais am na ñoo xam ne mën nañ ko dégg mais boo waxee leneen dañ naan la noo tu as l'esprit pervers ah xale yi jamono jii Mm-hmm. amul benn xale boo mën a wax bàyyil jigéen mu déglu la mm-hmm. amul benn jigéen boo mu bon duñ la faale sax mm-hmm. mais de grâce du loo xam ne dañ ko tere Sénégal parce que boo xoolee ba ci yenn panneau yi ñu ngi ko ñu ngi ko fay affiché xale boo xam ne dem nga ba munoo téye sa bopp mënoo muñ sa bopp te munoo am jabar te am nga partenaire boo xam ne yéen a ngi koy seq mais fagaru leen c'est pas c'est pas c'est pas méchant ndax bu ma toogoon fii ba suba naan leen moytu leen jigéen ñi bu leen seq ak jigéen benn affaire hors mariage. Mhm. samay wax ak zéro yam donc nañuy fagaru fagaru du fagaru pour parce que ñu bëri tey boo nee fagaru dañ naan non parewuma pour am doom il faut ma fagaru déedéet. Mhm. mais juste pour les maladies. Mhm. parce que dafa am ay feebar yoo xam ne. dafa bëri yoo xam ne mu ngi mu ngi ñëw ci ci ci les relations sexuelles. donc il faut ñuy fagaru pour moytu feebar yooyu. mais pas pour fagaru pour ay non doom ak déedéet nañ fagaru pour moytu feebar. Mhm. ok Mia. Mhm. Euh, je pense que moom dafa wax le trois euh, choses yoo xam ne dafa capter sama euh, dafa attirer sama <laughs> attention. Mhm. par par rapport ak mode de contamination ou bien de transmission. VIH bi. il a parlé tout à l'heure pédicure manucure mais ñun jigéen ñi aussi. en général jigéen ñu bëri ñu ngi téye seen bopp seen jëkkër aussi téye boppam. mais malheureusement accident dal dal ku jigéen ki. peut-être ca salon ba mu doon coiffure defee coiffure. Mhm. parce que les salons aussi foofu laa doon waxee sans quand j'interroge les technicien de la santé ñoom dañu war a wàcc sur le terrain. Mhm. salon yi ñu bëri ñu ngi ciy jële VIH parce que épingle bi nga xamante ni booy def sa tresse moom lañ lay ñawale. bu fekkee dafa piqué ku am sida. Mhm. mais sans boobu bu laalee. keneen ko xam dara jotu ko mu ñëw. épingle boobu doonu parce que létt moom en général épingle da lay jàpp. mu dañ dañ dañ lay beneen bi aussi mooy. les maladies sexuellement transmissibles les IST mhm. kooku aussi euh, euh, à l'école aussi ñu gën ci ñaax xale yi ba nga xamante ne du fekk du rek dañuy protéger wu pour am contraception ou bien ba bañ a am doom mais dañuy protéger wu pour bañ a am feebar yu mel noonu mhm. euh, bu ñuy dem aussi ci ñi nga xamante ne mooy góor ñi Euh, borom ñaari tur yi aussi. Mm-hmm. yal na ma yàlla baal dafa am ñoo xamante ni dañuy nekk borom ñaari tour mm-hmm. en même temps ñu nekk euh, si euh, mariage. yore seen bii lañ di woowee dañ koy lakkatoo dañ leen di ay bi ay bisexuel ay bisexuel ñoo xamante ne ñu ngi fii ñu ngi fee voilà mm-hmm. léegi foofu loolu aussi dañ koy fàtte mais il faut que ñuy xalaat foofu aussi parce que kooku jabaram mu ngi toog ci këram nekk ci sëyam demul dikkul mais jëkkëram mu ngi nekk si naka sa dul noonu def lu ko neex dem indi njaaxu mi indi indi jox ko jabaram c'est là où dafa am loo xam ne aussi sénégalais daf ko diisal. Mm-hmm. muy dem hôpital xool sa wërgu yaram. je me rappelle euh, mus naa dem hôpital di new ci ku jigéen ki ne ko dama mm-hmm. bëgg daal def test VIH sida mm-hmm. mu xool ma mu ne ma ñime nga wóolu nga sa bopp mais wóolu nga sa bopp ñime nga boobu man ça m'a tellement fait mal parce que étant une une personne j'ai le droit def ko parce que genre mun naa bañ a def lu bon mais mun naa ko am on sait jamais accidentellement mais bi ma ko defee mu jox ma samay résultat ne ma non da nga da nga négatif mm. comprends nga mm-hmm. ma ne ko alhamdulilah sant yàlla comprends nga mm-hmm. mu ne ma lii nga def de yombul jeune bu koy def ma ne ko defuma ko ngir am fit mm-hmm. defuma ko ngir leneen mais dama ko def pour xam pour ngir a fa fagul sama bopp mu a muccal keneen parce mun ngay dox ci mbedd dafa xasalu wañ jam la xamoo ko. Mhm. nit mun nga dagg mun nga def leneen du boo bonee rek nga te aussi leneen nañ ko moytu. Mhm. nañu moytu nañu moytu nañu moytu multi partenariat gi ñuy def. Mhm. xam ma Samba xam ma Demba xam ah. genre seq ak kii seq ak kii seq ak kële. Mm. et c' est dangereux. c' est valable pour les deux ah. que muy ah muy ki marié muy célibataire. Ah nañu moytu multi partenariat. moo gën a gaaw ci joxe ko. am na solo moo gën a gaaw ci joxe ko te ak. foo mën a toll ak kaa bi fu mu la mën a fekk. Mhm. rikk waay boo ko mënul muñ fagarul. mu nekk lu am solo loolu xam ngeen euh, waxoon nañ leen ko si ñër benn émission bi moom moo xam naa yow dama lay bàyyi rek euh, nga tàggatoo libéral le temps que ñu euh, Ramatoulaye dañu rejoindre ci plateau bi. ayca maa ngi am mbégte contentement encore une fois bu baax. ci mhm. yaatal gi ñu yaatal kaala boo xam ne fii ba suba mënuñu koo jeexal waaye dama naan jeunesse bi. Mhm. nañu gën farlu si nañu gën a muccal suñu bopp muccal ñi nga xam ne ñoonu la ñu nekkal te parent yi nañuy waxtaan ak doomu jigéen ñi parce que xale yi am nañ fit jamono ji nañuy waxtaan ak ñoom si la vie sexuelle mm-hmm. xam ne c'est pas un sujet tabou donc sa doom mm-hmm. da koy ñaax boo bëggee mu mucc mm. aussi di sant bu baax a baax ki nga xam ne tey moo génn fii euh, muy Khalil Khalil Gaye chef Khalil Gaye euh, homme de ni la mais moom mooy moo mooy solal mm-hmm. ramassoon na ma nag un jour moo ko waa police Pikine ko <laughs> <laughs> Aïcha am na solo loolu mu nekkoon ki nga xamante ni rek euh, moom mooy Momo mu nekkoon ak ñu nekk euh, ci lim nga xamante ni moom mooy euh, première partie deuxième partie émission bi Souka Seck nañu ñaax rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteur de la acteur yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey wàllu wërgu yaram bi mm-hmm. ci sensibilisation bi parce que xëy na sénégal yi dañu négliger li nga xamante ni moom mooy wàllu feebar boobu noonu mm-hmm. mais dafa nekk lu am solo nit ñi conscient ci situation bi fu mu toll waaw euh, Mia euh, dañ leen di ñaax parce que la santé le parent pauvre de la santé c'est la communication mhm. te sensibilisation boobu noonu dañuy wax a war di wax ak askan bi mhm. ñuy def ay spot publicitaire mm-hmm. di wàcc ci bàjjenu gox yi di wax ak ñoom mais di dem ci ASC yi mm-hmm. di wax ak sportif yi wala ñu dem ci salle de jeu yi mm-hmm. di wax ak ñi nga xam ñoom ñoo nekk foofu noonu li nga xamante ne nag moom moom la ñu war a waxtaane léegi ci kanam kooku moom dafa nekk loo xamante ni li muy def ci ay njaaxum wala li ay ravage kenn xamul nu mu toll mu nekk feebar boo xamante ni day yàq nit Mhm. ci biiram ba nga xamante ni mari day taali daal mun na ko loor daal. Mhm. voilà. ay ca waxoon nañ leen ko ci njëlbeen xam ngeen ni tey dañuy waxtaane ñaari feebar yoo xamante ne yu am solo la ginnaaw bu ñu waxtaane sida bi ba pare dañuy rek ñëwaat ci li nga xamante ni tëj na bopp jigéen ñi ah muy mag nag di ndaw mooy feebar boobu nga xamante ni cancer lañ koy wax nag bëri na ay type que mu soit cancer cancer du sein cancer du col de l'utérus ak yeneen cancer yoo xamante ni ñu ngi fii si Sénégal nag ñu génn ci octobre rose weer boobu nga xamante ne rek dañ ci doon jàppale bépp jigéen bu am feebar boobu Ramatoulaye nag rejoindre ñu ci plateau bi tey maa ngi koy gis macha allah dafa jongo wa macha allah Belton Mia euh, asalaamaaleykum tey noonu laay nuyoo xam nga tey la bis bu sell. ma ajuma macha allah su ko defee ñu waajal euh, weekend bi man weekend moom buy waaj jot damay man de gis naa ñu doon confié wu sànq nee nañ fii laa war a dem weekend damaa war a gont su ma wàccee rek sama sac daw. daw ba du ba du caat ba jaar moom la caat moo fa ba ma dem dama weekend jot ba seeti sama bàjjen mhm. bi. waaw dafa métti moo tax weekend bi buy jot moom da ngay mhm. kontaan mm-hmm. quand même allah. Mm-hmm. Euh, di nuyu mbokk internet yi bu mm-hmm. baax a baax. et puis di leen souhaiter macha allah xam naa ñoom tamit ñu ngi la koy delloo comme euh, ni nga ko déggee ah, tey ñu war a waxtaanee lu am solo jëm ci wàllum euh, cancer. exactement Mariama actuellement surtout cancer du col de nekk na loo xamante ne. c'est au cœur jigéen ñi ñu bëri ñu ngi ci souffrir am na ñoo xamante ne peut ils ont peur de se confier. Mhm. am na ñoo xamante ne peut-être ragal nañoo dem gis médecin pour ñu dévoiler leen ni que carrément li ma xew. Mhm. et aussi il est important de rappeler actuellement que dépistage dafa war a am. Mhm. Euh, que dépistage du cancer du sang et du col de l'utérus samedi le 13 novembre 2021 stade Léopold Sédar Senghor à partir de 8 heures. su ko defee man instant bi li may conseillé képp koo xamante ne jigéen nga. moo mhm. xamante ne am nga signe ou pas na nga dem defi dépistage boobu noonu. parce que def ko xam. Mhm. Euh, c'est important. yàqul dara ba cela mhm. ne veut pas dire que am nga ko. parce que mhm. am na ñoo xamante ne loolu la ñuy dugal ci bopp bi par exemple man mën naa mën naan ci sama bopp bi mhm. ah Mariama su ma gisee may dem huit heures kon day yaakaar ni am naa ko mhm. alors que tel n'est da ngay dem juste pour xam loolu noonu c'est important parce que boo xamee loolu mooy tax ba di nga jël sa matu say matuwaay di nga jéem a faju jéem a xam à l'avenir comment faire mais soo xamul doo mën a jël say comme li ñuy wax rek fagaru moo gën faju te mhm. yaakaar naa ni il est temps que ñu dem saytu seen wërgu-yaram fu mu toll mhm. laataa rek li leen nga xamante ne mooy feebar boobu noonu di leen dàpp su kaa seek ñu gis ne tey bu ñuy wax ay cancer col de l'utérus wala cancer du sein dañuy jàpp ne rek mag ñi ñoo ko moom wala ñu nga xamante ne dañoo sëy ba am ay doom toll ci benn âge bi alors que dañu ne à partir de 25 ans rek mën nga dem def li nga xamante ne moom mooy sa consultation absolument Mia donc dañuy wax ni képp kuy jigéen mhm. boo amee ñaar fukki ak juróom mhm. war nga mën a dem def def dépistage soit nga ko def euh, pour xam ndax amoo problème cancer du sein mhm. ou bien cancer col de l'utérus mu ngi def ay ravage yu metti ci jigéen ñi te loolu noonu xëj na am euh, benn euh, gène boo xamante ni Rama wax na ko léegi mooy dañuy gene wu dem def dépistage ndax dañuy defa ne bu ñu demee dañu leen di xool comme quoi dañu am la maladie. Mm-hmm. mais nag comme on di fagaru moo gën faju mm-hmm. je pense que nga teel a jóg xool ndax feebar bu bon bi nii nekkul si yow moo gën nga toog négligé. Mm-hmm. ba du coup mu commencé di yàq sa àdduna ndànk-ndànk. ba def fa mari day taale. li nga xamante ni aussi am nañ ko aussi. je pense que c'est pas euh, euh, euh on dit pas am nga ko rek tu es condamné. Mm-hmm. je pense que boo teelee jóg di nga am ay chance aussi. la mm-hmm. médecine mu am loo xamante ni. dina ko guérir ci cancer boobu noonu bala moo jël ampleur. surtout foofu noonu parce que ñu bëri dañuy jàpp ni xëy na soins yi dafa cher euh, chimio yi rendez-vous yi et puis c'est tellement cher en plus euh, assistance financière bi nga xamante moom moo war ci ñooñu nga xamante ñoom ñooy dund loolu di feebar bi dafay métti trop si seen côté. Mm. mais gis nañ euh, plateau couverture médicale plateau médical bi ñu ngi def ay jéego yu am solo. Mm. donte sax nag yombul a couvrir ñëpp mooy bonne volonté yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi aussi ñu xam ne wér gu yaram rek dara gënu ko. Mm-hmm. waaw foofu da dañuy gis ni l'état aussi ak couverture maladie euh, yi le plateau médical aussi ñoom am na ay jéego yu ñu ciy def. Mm-hmm. mais comme ni nga ko waxee rek les bonnes volonté foofu que tamit société bi. Mm-hmm. xaar nañ leen fa. surtout ñi nga xam ñoo nekk ci ONG yi aussi. ñu jàppale euh, jigéen ñi nga xamante ne mari day tali dañu am feebar boobu noonu. dem ci hôpitaux yi mm-hmm. encadrer hôpitaux yi appuyer leen financièrement mm-hmm. euh, des appuis financier matériels aussi mm-hmm. pour def le traitement parce que chimio bi c'est cher te metti na aussi te même psychologique sax mais euh, encadrement psychologique parce que ki am feebar boobu noonu kooku euh, cette personne là elle est malade psychologiquement psychologiquement day déstabiliser wu aussi kii nii souligné souligné na ko sànq moo en fait il est important de savoir que si kan moo neex a jàppale mooy koo xamante ne il il où elle s'est confiée je peux dire elle s'est confiée mhm. parce que léegi kii moom moom wax na ko sànq xale jigéen ñi duñu waxtaan ak seeni parents da ngay gis euh, sujet bu amatu fi je pense. Mhm. ngay gis xale bu jigéen boo xamante ne si biir ay règles peut-être moo am ci ay difficultés. wala mu gis ni. am mhm. na changement. Mhm. ci lu mu daan gis avant ak après. Mhm. mais il n'en parle pas avec ses parents. elle n'en parle pas avec ses parents parce que peut-être dafay rus dafay am benn complexe. boobu la ñu war a dindi teg ko côté surtout parents yi maman plus précisément les mamans. ni ñuy gën a jege seeni doom yu jigéen di gën a waxtaan ak ñoom surtout yoo xamante ne ñoo ngi ci âge boobu noonu nga xamante ne mooy 16 ans. Euh, 17 comme on dit âge puberté âge puberté âge euh, mhm. boobu c'est âge boobu très difficile pour une pour une fille mm très difficile parce que en ce moment say hormones lay développé wu ngay gis lu ne tu mhm, vois mhm. en ce moment ngay commencer yëkkati mbagg c'est en ce bu ñu la cadré wul rek tam nga dem ci erreur wala nga dugg ci loo xamante ne mooy loolu su ko defee parents nañu gën waxtaan ak seeni doom bañ a bàyyi sujet ay sujet tabou mm-hmm. seen diggante di wax ñuy waxtaan ak ñoom bu baax a baax su ko defee mm-hmm. ñoom aussi dinañ am courage yu dem euh, gis médecin voilà mu nekk lu am solo lu mu wax léegi nii ñoo ko déggandoo euh, mm-hmm. Souka voilà je je voulais terminer mais et la intervenu mu wax aussi lu am solo man dama doon euh, rappeler rek les parents cause aussi que nañuy waxtaan ak njaboot gi. Mhm. elle m'a empoîté mo le pas. Mhm. que bu ñuy def tabu ci entre ñoom ak seeni doom. Mhm. parce que cancer yàlla moo koy def naturellement c'est une maladie boo xam day am. les causes am na yoo xamante ne dañuy wax ay micro-ondes. di tàngal ak ay matières plastiques ci micro-ondes loolu yëpp dafay favoriser. kii euh, cancer genre yooyu noonu. mais aussi mm, waajur yi nga xamante ne euh, am nañu njaboot goo xam am nañu genre boobu noonu. dañ leen encadrer psychologiquement parce que l' encadrement psychologique mhm. je pense que dina jàppale nit ki ba bu amoon complexe dem hôpital mhm. wala mu amoon complex dem ci structure sanitaire yi nga xam moom moo ko mën a jàppale mhm. l' encadrement psychologique de ses parents ou bien de sàmmement dina wàññi lu bëri ci maladie boobu noonu maintenant Euh, par rapport ak euh, li nga xamante ne mooy les ONG te ñuy jàppale jigéen ñi aussi foofu aussi man damay wax l'aide bu mu nekk une aide financière mm-hmm. Mm-hmm. aide matériel mm-hmm. mais aussi je je demande à ces ONG là ñu wut bu ñu amee ay techniciens yoo xam ñoom ñooy leen suivre ci seen chimio thérapie ñu wut ay psychologues yoo xamante ni aussi ñooy assister ces malades là pour terminer euh, la jeunesse aussi nañuy am habitude di toucher seen sein. ñu mhm. xool ndax amul ay ganglions autopalpation voilà yooyu noonu yooyu genre signe yooyu noonu mhm. soo ko gisee nga xam ne normalul dawal rek nga def dépistage bi bala moo euh, trop am na solo loolu ñoo ko déggandoo ak yéen que muy sida que muy cancer bépp feebar boo xamante ne rek wala loo xamante ne ni c'est inhabituel chez mhm. toi dawal ka dawal gaaw li nga xamante ne moom mooy kër docteur yi ñu saytu la parce que jamono bee demee noonu léegi nit ñi kenn waratul donc il est préférable nga dem plutôt consulter wu xool e autant d'autant plus que nit da war a def bilan au moins boo toogee année bi yëpp même mhm. boo feebaru mhm. mais demal hôpital ñu defaral li nga xamante ne moom mooy bilan général au moins ñu mën na rassurer si t'as des choses yoo xamante ne nii danga ko war a prévenir wala da ci war a teela a jóg euh, voilà dina éviter ay dégâts mu nekkoon loolu nga xamante ne nag moom lañ leen indiloon tey ci journée bi mu nekkoon ci seen émission bis ni tey ma bàyyi la taa suka suka sekk nga tàggoo waaw Mia maa ngi leen di ta maa ngi lay tàggu maa ngi tàggu Rama. Mhm. maa ngi tàggu aussi les internautes di tàggu l'équipe technique bi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun tout le temps ci émission bés mhm. ni ki tey mhm. ak émission Sen Cas di def liggéey bu mucc ayib mais aussi di euh, euh, wax ni rek juma mubarak di wax bonne fin de semaine et à lundi incha allah voilà yéen moom xam naa seen weekend yéen a ngi koy préparé parce que tey moom fi ngeen fël moom weekend bi ça s'annonce bien. non coono bi la rek xam naa ni semaine bi ça n'a euh, euh, euh, facile pour nous durant toute la semaine mhm. Ramatoulaye yow mu yëngu coono bi bu baax moom ci semaine bi. man daal instant yi daal. Mhm. <laughs> nelaw rek laa gis sonn lañ def. da fatigué mais c'est normal c'est pas mais alhamdulilah l'amour du métier te mhm. donne envie de venir chaque fois que tu gis ñoom Tasuka ñoom ah. Uh-huh. ñoom Suka ñoom <laughs> Mariama macha allah sa donne envie te lépp loo xamante ne buñ ko fi waxee dina njëriñ ñi toog si ginnaaw di seetaan. Uh-huh. ça aussi ça ça donne envie alhamdulilah donc euh, di leen souhaiter bon week-end à la prochaine. Inch'Allah. <laughs> Aïe, c'était tout un plaisir pour nous aussi euh, de rester avec euh, vous pendant toute la semaine ba tey jii nag ñu ngi ci vendredi bi xam naa ci noonu nag lañ leen di souhaiter un très bon week-end et di leen jox daj dig daje lundi Inch'Allah d'ici là restez sur Equivox TV merci.